ki nga ki nga jëflanteel le candidat ki nga gis ko aux affaires ngeen màggandoo ni nga ko waxee nga gis ko mu am ay difficultés nekk ci jamono jafe-jafe ngeen ànd euh, ngeen bokk aussi à un moment donné appareil bi sous maître Abdoulaye Wade est-ce que da gis ne dafa pouvoir daf ko soppi wala il est resté le même. est-ce non, que non non il n'est pas resté le même du tout mon frère a changé et je pense que c'est tout à fait normal. il fait face à des rigueurs d'exercice du pouvoir, de l'administration, de l'économie, du social, dans un pays complètement parfois même en déliquescence pourrait-on dire dëkk boobu dafa sooke ci lu bare. kon am na circonstances atténuantes. oui mais pas beaucoup hein <laughs> pas beaucoup pas beaucoup je pense que moom ci boppam sax soxlawul yërmande ndimbal la gën a soxla. alors est-ce que est-ce que aussi reproché nga ko parce que euh, Abdoulaye boo fàttalikoo élection locale 2014. élection locale 2014 ni mu demee woon Saint-Louis dafa xawoon yéeme. Hmm. entre Braya moom ak Mansour Faye hmm. est-ce que foofu it da ngaa jàpp ne taxawaay bi mu foo taxawee dafa jéggi dayoo. wala ndax li nga doon xaar ci moom en tant que recul en tant que président de la République def na ko fa. 2014 euh, fekk na man je n'étais plus actif à l'Alliance pour la République. parce que bi ma nekkee Saint-Étienne ci laa def benn déclaration. ne gis naa président la république balaa mu yàgg mu génn ci parti bi jox ko keneen foofu ci guddi gi xaaruñu sax ñu génne ma secrétariat exécutif ma defaat beneen déclaration ne président de war na yeewu parce que bu yeewul heure bi ça va trop tard am ci ñoom ku ko jege lool ku ma tontu ne ma yow xamoo li ngay wax président fajar la yeewu ma xam ni ñii ak man bokkuñu la ñuy wax ak fa ñuy waxee ñu génne ma ci comité directeur donc bi may dem en 2014 oui. je suis allé vraiment par bravade je ne pouvais pas accepter mënu moo nangu ñu jël kenn rek parce que gorom la cuub coppet imposé ñu ko à Saint-Louis j'ai dit non je ne le fais pas on a tout fait pour que ma bañ ci dem ma ne danaa ci dem sans moyen j'avais une petite voiture que mon ami Mamadou Diop conduisait avec mes amis on y est allé sans espoir Mais comme j'avais des représentants dans tous les bureaux de vote, au moment du décompte, j'ai fait un second décompte qui a confirmé la victoire de Ahmed Fall Braya. seen chaîne fii RFM oui. TFM ñoo ma woo saint ma ne leen dans mes PV que j'ai reçus de tous les bureaux de vote Ahmed Fall Braya vainqueur su guddiwul woon dinaa jàll pom bi dem Gendar naan ak moom ataaya ndokkale ko ça m'a valu toutes sortes ça ne peut pas me faire grand-chose. Il est intervenu en personne. la police s'en est mêlée Saint-Louis a été barricadé. moom dafa dugal loxoom ci élection yooyu. oui sëñ du jeex du xaaj yow tam bakkan ba la ci tegoon mais xam jàpp naa ni léegi il a compris avec ce qui se passe à Saint-Louis que il va y avoir des effets qui vont lui être imputés s'il ne fait pas attention. maître man oui euh, c'est un honneur hein, de de vous avoir.